ndax man ñëpp nañu rek waaw. ñoo ko gisandoo nii ngeen gis nii image yi ngeen gis. moy auto Ousmane Sonko parce que ñi nga xamne ñom ñoy wa GIGN ñoo di jaay doole bëgg japp ñi nga xamantene ñom ñoy d'abord euh ñi nga xamne ñom ñoy assurer sécurité Ousmane Sonko du bëgg jël Ousmane Sonko jël ko ñu ñu koy kidnapper diko ñu ñoo ngi kidnapper ki nga xamne mo di président Ousmane Sonko ñoo ngi kidnapper ki nga xamne mo moy président Ousmane Sonko diko ñu li faw ñepp gis ko ñoo ko bëgg kidnapper diko ñu ñoo koy bëgg jaay doole

Macky Sall bi nga xamante ne moom mooy joxe ordre yi ñu ngi jël di jaay doole ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko ñun daal ñoo gisandoo loolu c' est malheureux c' est vraiment malheureux te mooy li nga xamante ne moo am Sénégal kon ñun ñëpp ñu gisandoo ko ñu xam ne gaañ yi nee nañ déet Ousmane Sonko duñ ko fi jëlee waaye ñu ngi koy jaay doole ngir yóbbu ko lii foofu ñëpp gis ko lii foofu ñëpp xam ko lii daal. mooy li nga xamante ne moo am ci Sénégal lii daal mooy li nga xamante ne moo am fii nga xamante ne moom mooy ci rond point Mermoz pour leen rek moo leen ñor mooy fexe ba jëlee fi ki nga xamante ne moo di président Ousmane Sonko jël nañ sécurité Ousmane Sonko waaye GIGN en ce moment wër nañ oto bi nga xamante moom mooy oto Ousmane Sonko en ce moment lu ñu nam moy fexe ba jël ki nga xam modi président Ousmane Sonko yóbbu ko ñoo ko gisandoo ñoo ko gisandoo waa GIGN ñew nañu fexe nañ fexe nañ ba ñëw ngir jël ki nga xam modi président Ousmane Sonko. Qu'est-ce qu'il va faire, euh, Djiby? C'est le constat que nous avons fait. et ce constat est malheureux yóbbu Ousmane Sonko lañ nam ah? yóbbu yóbbu ko lañ nam fi mu ne nii yóbbu ko lañ nam fi mu ne nii yóbbu président Ousmane Sonko lañ nam et ça ñun ñëpp ñoo ko assisté et ça ñëpp ñoo ko gisaloon suñu